Boy Tagay Tagay Tagay mistake nga Boy Tagay dengan mistake bila wala boy tagay yo yo dengan mana dul boy bila wala talai boy ini aku de da dengan mana dul boy yo nga ne nga be yo nga cob gana. Gana nga cob nga naan da nga cobbe moo wax fii nga aman fi yow sa wéy bi man tonal. Sen dul of all time Ba nekk ni puubatina puub pubi, pour yaa nekk ni loolu nga waroon a wax booy taaka yi booy yow moo wax mu ne dafa cob bey booy suma brother yo ban bi nga mën a boy fam boy yo yow ba bere am nga leen moom a gën yo sa cuuni yëpp boy fam boy yo sa cuuni yëpp ha yo sa booba nga nga di explain man nii laa men man ma def nii moom boy holal ñun ñun we don't need those kind of motivation man fam boy. ñun holal chuni esti mo ñu dee faj yu nga xamante ni la daf yee yow fu mu nekk nii yaa ngi gën a cuuni furax yoo xamante ni booy next minute léegi ay mbalax nga ñu nekk di dugalal booy ñun Gambien ni gangsta leen de duñ dee déglu mbalax de suma broda fu mu nekk nii ay mbalax nga ñu nekk di ñun duñ dee fecca mbalax ñun gangsta leen ñun Rastafari leen booy xoolal ñun cuuni ñu dee déglu de yu make sense gën a ñu lu make sense booy yow fu mu nekk nii doo ñu ne gën a lu make sense boy yow mu lo stand esti deg lolu wax mu ne ku bëgg man sa yalla yé fan sama sénégal la boy nga wolé jëna ak sa hébita ka sénégal lu mo ni do mo ni wala boy mi dispiage boy boy ya boy diga diga boy legi boy legi legi ni boy next minute da nga obala fay boy fu mega kan ni ha da nga obala fay sama broda boy da nga nit pour takat nga nan vi yow ya fi takat, yow nga fay nga fay Sendulkat of all time ba puba dina pub yu rëy yow pub ya nekani ni oh, nga warono wey da nga muna way smara nga son so bëgge man sa yalla yee fon samba Sénégal ndoje Gambia ye man sa kilin la soto sirango kan santo wolam std ni mo wolon so fu ya moy okay ye da studies la nak you know ye da ye study because ite eh, ila nyum tunol be next minute io re géré yep next minute boy ya ah. sabo fa renga ne di promote ci ci ci music way yo man gisuma ci géré gene bo ni daf ñoo njëriñ ñun ñun ñun youth ci right now ni yow yo yangi fight yo kene yani di fight do no bale ko bro di wax na yo ay gangster nga yow do gangster de yo mbalax kan nga boy fa da nga dem mbalaxi jamal yow rëjëgum taj nga war a dem feeja booy ñun xamuñ loolu de booy ñun xoolal rastafari lañ gangsta leen booy ñun gaawee lañ jógee man fam booy ST for life man booy xanaa dégloo tey lu mu nekk di rotal si internet foo dégg foo duga booy suñu ST nga dee dégg man du ma dee dégg sa benn cuun sax soo da nga war a dem Apolo Jaay suma daga bu ñu yàpp